salaam gars yi naa leen baax ziar ñu bëri ñu may interpeller pour ma wax si euh, Nicolas Jackson li mu def Nicolas Jackson dafa juum Nicolas Jackson nekkul si dëgg Nicolas Jackson gën di erreur lu mu wax woy bi wax na ay ay seeni parents ay ay ay Angola lañ juddu fu nekk lañ juddu mu neex mais affaire de góor jigéen lañ si boole ay transgenre xamuñu transgenre ko Nicolas Jackson daa daanu yow lii dafa sensible monde bi yëpp ñoo ngi ñoo ngi sonal noir yi Balotelli yi Boateng yi leen def Italie anglais yow fii dañu yenn saa yi dañuy def am na benn supporter Chelsea un jour na dem euh, noir di dugg si métro bi supporter Chelsea génne ko di affaire de racisme affaire de noir la dix jours dañ ko dañ nga xam ne albanais la sax du noir dafa désabonné yow nga ne da nga koy foro nga foro Enzo Fernandez xam nga lan Fernandez Enzo Fernandez ngën di def moom ak joueurs yi éventuellement yenn argentin wax ne même moos gën a fës ñu gis ko muy wax yow boo mënul maanu si affaire bi sa xarit mais sa waay yem si yeen ñaar mais lu concerne ça toute une communauté nga jël fépp foo jël si monde bi am na noir yow nga ne da ngay kii di xas noir yi yow ko nekk mu jéggalu mais li nga def nii kenn xamul mu doon moo tax sénégalais yi ñëw naan non Nicolas Nicolas Jackson moom xam nga moo nekk si dëgg nangam nangam gis nga bàyyi leen far bàyyi leen man dama faral Messi wala ma faral Argentine lii du Messi ak Argentine Mbappé li mu leen wax dafa a kii nañ tontu si si a kii leen si football si bi ba tey waaye sa bàyyi Cameroun la jógee sa lii yéen ay trans de guerre da ngeen séex ak ay ceg ak ay góor jigéen nag ay affaire yu salte la Nicolas Jackson dafa juum te ku fekkee da ngeen ko bëgg wax leen ko dëgg ne que da nga juum man dama bëgg Nicolas Jackson mais sur ce cas dafa def ngën di bêtise mbokk internet yi nuyu naa leen bu baax jeex leen euh, franchement di am mbégte saa su ne jox leen ay xibaar xibaar dama koy doole si waa Barcelone ñi nga xamante ne dañoo bëgg Nico Williams ak Olmo selon takkatu xibaar yi dëkkoo wax nak représentant yu Nico euh, Williams en attendant euh, xool ndax dinañ fi jaay quelques jours pour am kii di Olmo mais pour l'instant Nico Williams actuellement waxtaan bi tàmbal nañ ko et que le jour aussi bëgg na fa dem mais aussi à noter que Liverpool bëgg na doubler Barça Chelsea aussi tamit def na offre am bu yàgg di xaar c'est le jour moom moo bëgg dem Barça loolu moom c'est à noter démb Oustim comme ni mu leen ko waxee Olmo euh, am na supporter Barça yi ko doon tooñ itu ay xale yu ndaw mu ne man naa dem si club bu xamante ne euh, day jël ay titre loolu rek la bëgg donc xibaar yi foofu lañ ko mën a dooree mbokk yi beneen xibaar lañ ko xam ne dañ koy wax Rabiot libre na dem fu nekk beaucoup d'équipes nag ñu ngi sur le dossier que ça soit Juventus bëgg nañ mu prolongé waat Inter dugg na ci euh, côté Angleterre gis nañ Manchester United ak Liverpool ñu ngi sur le dossier donc il est contrat mën na dem fu ko neex te jamono bi ñu ne mu ngi wax ak ay club anglais donc mën nañ jot ne donc man Manchester City Manchester United wala Liverpool wala Arsenal kenn la si bu ñu bouger un peu avancé Real Madrid dafa bëgg a prolonger kii di euh, Ferland Mendy gis ngeen ne fan yii la passé dañoo wax ne Davies lañ bëgg Davies lañ bëgg donc da ngay gis ne daaw lañ ne Ferland Mendy mooy jour bi xamante ne moom lañ kii gën a tuutalee lu ñu ko dribblé moom la boo xoolee la mu yemaal dem na ba ne jour bii gën bi ma gën a sonal bu ma xamante ne euh, su ma jàkkaarloo moom kan la Ferland Mendy la donc Ferland Mendy waa Real jox dañ ko jox cër ba tax na jamono bi dañ ko bëgg a prolonger Rakitic day jogee di côté de Arabie Saoudite day dolli Europe après un même un an rek la fa def donc pare na déjà pour quitter ce club là donc pour retourner en Europe à noter que moom ak euh, Habib Diallo ñu bokk Shabab donc pare na pour retourner en ñu bëri na ñu wax ne dëkkam lay dem Croatie. bu ñu jegee foofu beneen information bu ñu war a wax Lukaku va jouer que pour Napoli. waa Chelsea pare nañ pour jaay euh, Napoli bëgg nañu Lukaku mais avant ça il faut que ñu jaay un attaquant donc attaquant bi ñuy pare wax di ngeen ko dégg léegi donc Lukaku fa la dem boo gisee lu tax ñu wax loolu Osimhen jamono bi d' na xam ne Nigériens yi anglais la ñu seen sàmm naa Angleterre la ñu gën a seetaan leur rêve c' plus Premier League que sàmm naa France surtout que jaaroon na Lille du coup Osimhen euh, du côté de Paris Saint-Germain moom d' donc kii di Osimhen Guimaraes du côté de City waa Manchester City dañoo bëgg Guimaraes waaye waa waa waa kii di Newcastle dañuy xaar clause libératoire se cent millions d'euros donc boo leen bëgg jël international bi brésilien bi di ngeen débourser cent millions d'euros c'est tellement excessif xaalis bu weex tàll la en tout cas daal xam nañ ne City moom mën nañ ko cent millions génne ko du dara si ñoom. Liverpool ne veut pas vendre Luis Diaz boo leen gisee sama micro bi muy door dañu wax ne Liverpool waaw mën naa mu jaay Luis Diaz waa Barcelone pare nañ pour jël que Luis Diaz Barça la dem et tout sunu taskatu xibaar bi di euh, The Athletic donc Liverpool parewul benn yoon pour jaay Luis Diaz beneen information boo xam ne dañ koy wax Conor Gallagher capitaine bu Chelsea donc waa Tottenham bu Pape Matar ñoo ko ñoo ko soxla on par de quarante à cinquante millions d'euros donc euh, mu nekk un milieu terrain bu ñu xam bu baax baax baax di côté de Premier League bu ñu jógee foofu beneen information bu xamante ne championnat Angleterre la ba tey mooy kimis ba tey Manchester City moo koy suivre selon The Athletic The Athletic moo xamale ba nii ñuy wax ak yéen nii euh, Kimmich ak Manchester City mu ngi koy toppatoo moom bëgg na dem du côté de Premier League à noter que Pep Guardiola moo ko def priorité João Neves. OPG pour soixante dix millions d'euros du samay wax li nu mel taskatu xibaar bi ñuy wax l'équipe ak Foot Mercato ñoo xëyee di wax ne donc kii di euh, Neves mën na dem du côté de PSG à noter que mu ngi jóge fële ca Benfica. Ah, Bayern Munich dañoo bëgg kan dañoo bëgg Embolo eh, Embolo mooy international suisse bi d'origine camerounais donc nekk di côté de Monaco instant yi waa waa waa waa waa Bayern Munich bëgg nañ le joueur dinañ jéem waxtaan ak moom pour convaincre que mu ñëw foofu ca Allemagne à noter que fa la woon semble Bundesliga la doon joué laataa mu ñëw Monaco foofu ci Premier League euh, waa waa Tottenham ba tey jii ñoo ngi euh, ñoo ngi ci waxtaan di waajal semaine bi def le tout bu tenir seen euh, capitaine Son pour mu prolonger mu nekk seen jour bu xamante ne day tuuti à tous les matchs du coup dañ ko bëgg a prolonger. Euh, dem si guddi heure française Greenwood euh, yegg na Marseille tey jii nii si jeudi bi la war a def visite médicale am signé si club olympien bi démb gis nañ supporter yi comme ni ñu def defaloon Iliman Ndiaye noonu fees dell di ko di tuddu turam Greenwood Greenwood donc euh, tey jii si jeudi bi la war a signé son contrat de cinq ans. international portugais bi Bernardo Silva bi nekk Manchester City mu sur le point de rester à Manchester City selon taskat xibaar bi ñuy Citizen Citizen football mu ngi xamale ne donc l'international portugais dafa bëgg toog fii di dafa bëggoon dem mais bi ñu ko waxaatee le projet ne day continuer avec des trophées avec un salaire même bu xamante ne club bi pare na pour jox ko dafa commencé changer avis de pourquoi pas rester encore beneen at du côté de Angleterre si club bi di Manchester City. mbokk yi euh, fii la information yi yem wax naa ab defal naa leen vidéo spéciale mercato des Lions bu xamante ne dina dugg si chaîne bi à partir de à de onze heures beneen bi beneen bi une heure am na vidéo boo xam dañuy wax si Mikel Ngor Faye naa mën na football Barcelone et côté quinze heures côté quatorze heures quinze heures dinañ leen andil info beneen Mercato fii rek ci ay waxtu di ngeen gis ne yeneen information di génne di ngeen ko am incha allah itam ci chaîne bi donc continuer leen di like continuer leen di partage continuer di wax seen xalaat ci commentaire yi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen su seen football TV.